loolu te ànd ak wér ak mboolem jëwriñ ñi koy jàppale ca liggéey ba jëwriñ ñoo ngi leen di siyaar baax a baax ñaanal mu yàgg fi lool te ak wér ak mboolem koy jàppale ca liggéey ba Mouhamed Seck ak Abdoul Ahad Ndoye jaa ngeen ci taxawaay gi ci partage gi comme ni di ko defee bi ñoom it di bi ñoom tamit ñu ngi leen di siyaar baax a baax a baax gërëm ko baax moom boutique la solution ak KP ñoo leen di gunge KP xam ngeen ko yow muy yónnee ak jot xaalis demal nga taamu ko ndax wóor na gaaw na te yomb na yomb nag mënta weesu 1000 francs yi ngay jël di ko yónnee sa jabar 1000 francs yooyu lay jot te yow duñ dagg ci yow dara la nga fa denc boo demee di ko jëlaat moom lañ lay jox te duñ la dagg dara loolu nag gënul weesu yomb la solution mi ngi fi lépp lu jëm ci wàllum faj xam ngeen ko benn chaise la ñu am fii ci Dakar mi ngi en face wàllu fajri ku ngeen romb ci mbedd meeg ci koñ beeg ci roq-roqaani mi wëndeelu naan ay la yéen nekkuñu fi tey mën lañ jox affaire yi Sadio Mbengue di xarit ci sëriñ daari alaaji maa ngi laa nuyooti. sooy bu ñu ngi lay fay. Mm-hmm. Eh, di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow. Mm-hmm. di dem ba Touba Mbacke di nuyu xalif général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal yaa ngi waaye di ziar di sunu sëriñ sunu xarit. Mm-hmm. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulaye Mbacke. ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. amiin bu wér. nuyu sëriñ Xaadim Mbacke di nuyu njaboot gi yëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu Serigne Abdou Karim Mbacke Barma Karim Ahla di nuyu kilifa dina yeewoo ci biir réew mi. lew nañu seen mbir na bàyyi diwaan Ndiassane laa yéen Thiénaba Andoulaye di nuyu waa Jaamal nuyu bu baax waa kër Mamela ñu leen ca Thiès nuyu xarit Sera de Baye Fall di nuyu waa kër Sëñ Abba Sall ca Louga. di nuyu suñu mbokk jàng bi di am ñu ñoom mbégte kontaante Alaaji Modou Diouf Mouhamed Seck Abdou Top ñoo nekk ci xarala gi di am ci ñoom mbégte ak kontaante Baye Assane Mesere nuyu nañ la. di am ci yow mbégte ak kontaante waaye hmm. di am ci eh, soxna yi mbégte ak kontaante Codé ak eh, Amina Codé ak Amina waaw ñu leen di nuyu di leen ziar voilà di am ci yow mbégte kontaante dégg naa sama taaliba ba day day day day may digaat son bi waaye ci kër yi nga daan ndox doo muy suy non non mais dama am adresse <laughs> yow laa njëkk a nuyu. léegi da ngay màndi wala. kii laataa muy dem Touba nuyu la. yow avant may dem yow bu maa ngi lay nuyu di la fay jàmbale jàmm nekk waaw dama ni. dama ni ni nga nuyoo Assane. waaw. adressé da ko adressé adressé ne adressé sooy bu maa ngi lay nuyu tey. man ñaar soxna la man man man man man kilifa. kon ku amul ñaar kenn ku ne. nuyu kilifa ak nuyu. kon yow xanaa yow joroon nuyu. déet déet. xanaa yow jarul nuyu ko. non non non bi may nuyu jarul maa nuyu rek alaaji. non non jarul nuyu na la yow danaa nuyu. mais nuyu na nuyu yaay sama xalifa man ci laay roy man fu ma toll bu ma kenn xas xas leen man ci moom laay roy. saar yi lay def naa bu damaa dañ may gëm non non <laughs> man ci moom laay roy léegi man wax naa àdduna bi yëpp alaaj heure bu ngeen dégg alaaj incha allah jël na ñaareel balaa yàgg ma jël incha allah. jeex na waaw léegi jeex na bàyyi ko mu man yaay sama naataango meng man dama laa faa ba faa la ñu lépp meng man yaay sama naataango. waaw boo bëggee ñooy nuyu nuyu bu may nuyu da ngay def waaw man daa bu ma ko sax déedéet ma def mais dama ne woon kii ma bàyyi ma xaar ba mu def ni nga def ma def ni mu def man damay kii xam nga sooy bu dëkk xam ma ngay dem comme que Moodu nee na buy wëddee fii <laughs> ngay dem ah? buy ba Moodu nit tere ne foofu. rek. nee na yéen xamal man kay léegi leneen li nga xamante ni moo ci nag euh, waa nuyu nañ ñëpp di wax ni nag euh, kàppe yi moo ñuy gunge kàppe nag defe naa ni bokk nañ ci ñi nga xamante ni tey mm-hmm. ci biir réew mi mm-hmm. ah ñu bari daw nañ wutali ko ndaxte gis nañ taxawaay bi nga xam ne ñun am nañ ko waa làmb tamit bu ñu ñëwee dañuy gën a tàllal loxo la ñu yaatal liggéey bi comédiens yi nga xamante ni tamit ñi ngi wër mm-hmm. dëkk bi di ci liggéey liggéey bu am solo mm-hmm. ñooñu defe naa ni tax nañ bi waaye nag waa làmb ñoom xam nga dañuy bëgg bu ñëwee rek nañ ñoo tax ñu xam la <laughs> te loolu demee wut yi kàppa yi nit ñi xam nañ ko laataan muy dugg ci làmb ji waaw KP moo ñu dimbali moo ñu dimbali di suqal moo leen moom dañuy dimbali ñoom làmb moom nag dafa pare na ngir dimbali làmb pare maanaam du day ñuy dimbali ñoom KP mais <laughs> KP yi dimbali làmb ñoom xam dimbal gi ñoom nañ ko xam nañ xam ni euh, vraiment télé yëpp ñi ngi def publicité KP yi Sénégal gi yëpp xam ko ginnaaw bi télé yëpp roob nañ nga gis ni comédien yi génn nañ daal di def yor ay kii wër dëkk yi Sénégal yëpp daal di yëg ña nekk ca marché yëpp yëpp comprendre am nañ ñëw rek bokk ci liggéey bi te xam ni lépp kaapay la waaw te bañ a ruube naan kenn xamutoon kaapay ñu ñëwee ci làmb ji déedéet làmb moom dafa diigo donc kaapay nit ñi xam nañ ko bu baax macha allah ñu bari tey Eh, eh, jox nañ leen fii paas yi. tey la ubbi tey la ubbi tey nag ñu ne combat am na. nga naan combat bu kañ la ak loo naa xëy na foofu combat. waaw combat la am. waaw may may joxe nañ fi nit ñi am kaabe. Hmm. gàmm. Hmm. def nañ ko fi. 31 ba xam nañ ga. jërëjëf 31 bi kañ lañ ciy boole. Ah, ah, moom ba bay jékki-jékki daa am ñu woo di naan leen kàppee leen ko may. ci solution ci kii am nga koy lool. déet garaaw. non non Ba eh, eh, eh. <laughs> ah. am lu mu jëndal ko incha allah. non non eh man. xaaral ba léegi waaye dafa ci yokk lu. sama yaram a tàng ba. <laughs> sa yaram day fexe muy seet. seet na bu di solution en face Walfadjri la nekk di yëngu ci garab yi nga xamante ne moom la yor garab yi cosaan. Hmm. di ci liggéey liggéey bu am solo. Hmm. waaw bas ca Espagne nee na ma faj ngeen waa dëkk ba. Hmm. parce que nag bu di solution garabam yi dañuy faj. nekkuñu garab yoo xam ne fajuñ. ñi amee hémorroïde xam nañ ci dara. ndoxum siti néew kàttan. raay mu sedd kër gu ne war na caa am benn. estomac. Sénégal tàggoo leen ak estomac ci kaw ngeen ruufaloo gudd solution. waratul ci yow ay sama kii day tàkk ak sama xol bi day def nii ak bu ngeen ruufaloo gudd solution incha allah rabbi jàngoro yooyu yëpp dana saafaru ballonnement biir bu naan gur gur. ruufaloo gudd solution saa yu faju bi amee tànk yuy xaar. autoroute baa ngi fi. gudd solution daal asma moo ci man. Mhm. ci miim réew. kon daw leen wutali ko te itam ñi doon wax ni. man nañoo faj kàttan bu mu yor am na ku ñëwoon waaf na keneen nag mi ngi hmm. signalé waat la mu indi bu dee baax na incha allah fii ak weer ba jàpp ñaar weer hmm. dingeen ngeen dégg fii ñu ne am na koo xam ne day faj kàttan ba mu wér péréb hmm. kooku nag nee na jox leen ma ñaar ba ñetti nit ma faj ba ñu wér ñu doog a jëflante incha allah aji jërëjëf sooy bu ñu lay siyaare baax a baax di siyaare alaaji Sa Ndiogou Mbengue di ndokkeel ñi nga xamante ni saa bu ñëwee rek dinañ ba mu jeex ñenn ñi saa bu wàccee rek bala ñoo laalu laal danañ ko seetaan ñenn ñi sax nee nañ ma fajar lañ koy seetaan ndax bokk heure yi bokkuñu ñun ñu ngi leen di gërëm di wax ni lépp loo xamante ni def nañ ko ngir ñun ko yàlla def si seen téere jëf waaye lépp loo xamante ni xamee nañ ko seenum réew dañ waral ko ñu ñaan sàkk si ñoom ñu ñaanal ñu bu baax a baax waa bitim réew ndax ñooñu dañoo dem jihaat yi jihaad nag képp ku si nekk loo ñaan rek suñu borom dana ko nangu kon nañu ñaanal bu baax a baax a baax te gën see jàpp ndax ñoom képp kuñ jàppale rek sa kanam nga jëm ñoom waa bitim réew ñu di ndokkeel di ndokkeel Baye Cheikh Diouf ma fa bu baax a baax a baax ak mboolem koo xamante ni yaa ngi foofu si bitim réew ñi si hôpital yi ñu di ñaanal jàmm ñi si kaso yi ñu ngi leen di ñaanal suñu borom génn leen Cheikh Ahmed si ma nga fa ñu ngi koy ndokkeel ak ki xam ne mooy Jóob tey fa ñëpp ñu ngi leen di ñaanal suñu borom génn leen si yiite yi ñi si eh, hôpital yeeg. yéen si Diop dañ ko envoyé prison wala mi ngi mi ngi ci kii. retour de parc. mi ngi retour de parc. non mujj nañ mujj nañ dem. dem nañ kaso. waaw mujj nañ dem ñoom ñëpp ñu leen ñaanal suñu borom génne leen si biti di ñaanal it ñi nga xamante ni génn nañ àddina yal na suñu borom yërëm leen te leen àjjana damay seen njaboot xol mu teg leen si ñu bëgg dëgg bañ fekk leen. di waxaat it yi rob bi nga xam ne ñu ngi koy rob. ginnaaw takkusaan ak ginnaaw tisbaar nit ku nelaw dix heures nga bëgg koo rob onze heures téye comme noonu. parce que daa war a dem rek. dafa war a dem mais mën naa tich yoon yi mën naa fàtte am na ñoo xam ne nelaw. mais Assane médecine passé sa kër. mais bii nee na seen kër da day nelaw da nga def chef de carte mu bind la. ah d' accord ah, waaw. ok xam nga tey am na ñoo xamante bu masaan nelaw day nelaw da nga dem suuli. Hmm. léegi nag ku demee ni bàq yaa feneen boo demee il faut que koñ bi nga dee nga indi autorisation. te daa ne faatu na waaw moom bindal la da nga naan sama koñ mag la wala ko ni nga wax ñu bind jox la kii nga dem mbàq ya wane kayit bi nag fekkee ni maanaam deenaat am na ñuy neraw ñetti fan d'accord ah wax dëgg yàlla nañuy def ndànk si néeg yi daal ñu ngi ah, nag médecin war na ñëw ne dem ci chef de quartier mais ñu bari da ngay am sa néew da mu faatu nga dem hôpital mu faatu ba pare ñu laajee ci xaalis bu baree baree bari est ñu bari loolu dañuy daw parce que mosuma jàpp ne nag alaaji nit ne faatu ba pare te yow nga ci hôpital ñu ne léegi pour ñu jox la corps génne xaalis bu bari moo tax boo demee kàddaan kii bëri sax ña nga foofu noonu ay garantir yëpp garab jël néew bi yooyu yëpp wax dëgg yàlla euh, nañu si dimbaliwaat bu baax a baax a baax a baax macha allah euh, ku ñuy wax Ibou Diaby euh, internaute bu bees la nee na je suis content je vous en direct solution TV pour la première fois merci à vous jërëjëf Ibou yow tamit euh, partagé ko jamono bi ngay seetaan yow tamit def ko ci sa statut pour yow tam nga xëccaat ñeneen ñu ñëw te bu ci yam nag da ngay abonné laal cloche de notification bi bu ko defee vidéo bu ñu def rek mu daal di signaler nga man ko am jaajëf ARMP euh, def na benn euh, audit la def maanaam benn daal gëstu ak saytu lenn ci ay bànqaas yi nga xam ni ngi ci réew mi te yoroon àllu réew mi wala boobu ñu natta leen ab budget ñu cey def naka naka sudul noonu nee na ci coronavirus bi daal am ñu bare bare bare ñoo xam ni doon nañ def li nga xam ni moom mooy surfacturation bi ñu demee nag ci ñi nga xam ni jàpp nañu daal am na lu ñu ca def ministère bi nga xam ni moom la Abdoulaye Diouf jiite woon muy wàllu santé ak ki nga xam ni mooy Mansour Faye njab gorom njiitu réew mi nee daal gis nañ yu bëree bëri lu mu jëm ci ceeb beeg gel beeg yeneen yu mel tudd na ko ni am na ay surfacturation yu bëree bëree bëree bëri yoo xam ne am na ci premier ministre Amadou Ba démb doon na janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa réew mi fi ci assemblée nationale wax ji nag euh, ak question yi bëri woon na lool ku ci mel ni euh, Mimi Touré démb posé na ko ay question bopp euh, yoo xam ne sax dikk na ci muy troisième mandat nee na ci déglu ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy waa conseil bi incha allah ñëw Euh, nee nag lii muy gis ci penc mi rek dafa mel ni daal am na lu mu koy xeeñ mooy dafa mel ni daal dañoo ñemewut mbër mi xam ne dañ ko bëgg a euh, daal di génne ci géew bi daal loolu dinañ ci ñëw incha Ba daal nee nañu xaar ba conseil bi wax ba pare l'affaire capitaine Touré xam ngeen ni démb la woon tey bi ñu xëyee euh, yëfi rajo yeeg télé yi nee nañ ci cell yëfi lan la lu xew ba kenn déggul daanaka dara ku ci xam lenn bariwut ay benn benn rek lañ dégg ñu naan capitaine kat dëggal na la nga waxoon nee na nangam a sàngam lu tax yëf yi ci public bi comme yi daan passé loolu ab jàngat la Baye Mbaye MC tey ji la war a wuy ji incha allah moom tamit ngir audio yi nga xam ni nee na yor na ko yu dëggal ne Adji Sarr wax na ni lii ab complot kese la waaye diw ak diwoo ma ko def la loolu lépp Baye Mbaye MC tey ji dina dem jàkkaarloog juge bi suba incha nee nañu ñu ngay xaar ki nga xam ni moom mooy ah, madame Tall madame Tall nag moo yoroon Adji saar bi mu nekkee diggante eh, salon de beauté ak eh, ci boutique ba mu nekkoon di fa jaay ak def yëf madame Tall moom ne ko dañ may bëgg a yóbbu président Macky tey suba incha allah dana de wuy ji doyen des juges Maham Diallo waaye Yewwi Askan Wi ñoom it déposé nañu ab këyit fële ca président assemblée nationale ngir daal ni dañoo bari bëgg a daaneel gouvernement bu euh, Amadou Ba maanaam daal li nga xam ne moom la jiite dañ ko daaneel lu tax xëy na dañoo am lu naqare yeneen ni mais dinañ si ñëw rek ba àndee dogal borom bi ñaari député yi nga xam ne dañoo xam ne dañuy mëyi daw euh, daal mujj nañu ñëw démb ci assemblée nationale tey bi procureur wala boobu juge bi la jàkkaar lool ñu seq ay laaj ak tontu ci ñu soxna soos ñu wulli woon ci assemblée nationale bañ koy toggali ki xewar nan la yëfi di demee ndax dañuy mujj mal simi seen malaanu kiiraay pour jébbal leen yoon wala nan lay demee waaye tey jii daal incha allahu rabbi wax nañu ne ña ngay dem di wuyu ji donte ni démb la ñu yóbbu bàyyi ci yow la ñuy dooree euh, nga xam ne moom mooy affaire capitaine Touré wala boog ñu dem ca euh, assemblée nationale premier ministre bu euh, Sénégal démb jàkkaarloo na ministre yi ndax bu fekkee seetaanoon nga la xewoon ndax doyloo nga maanaam convaincre na la ci discours yi mu def foofu ak question yi mu tontu ak li mu wax ni maanaam gars yi dañoo ragal président Macky Sall ba bañ mu bokk ci élection yi ak troisième mandat bi nañu xaar conseil bi ñu wax ci. waaw jërëjëf jël kàddu ñëpp yaakaar naa sant nañ ko moom si ak mbaaxam ak taxawaayam ñu si ëpp beneen bi it laaj si mbirum troisième mandat mu wax ni ki si war a wax waxoo ko ci. waaye moom it leeral na dafa ni ne peut pas agale. nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. waaw d' accord ci wax na ko fa. Ah. ba parti li jaasi ñoom ñëpp tàccu ko. assemblée ah. bi ñëpp tàccu ko. mais li ma jaaxal bi ñu xëyee journaliste yi dañ ni euh, premier ministre bi de maanaam waxut ci troisième mandat bi nu mu ko caa wax nee na ki si war a wax dina ci wax. muy conseil waaw te lim si wax nii moom premier ministre mënu ko see weesu ne peut pas. de deux mandats. nii la ko waxee si assemblée Euh, kon kay wàccoo naa ko ensemble wàccoo naa ak Sénégal yi. mais dañ doon xaar mu ni loolu moom kenn mënu ko def ci réew mi. loolu du fi am baat boobu nga wax noonu du pour loolu la. na ci. waaye man man man li ma déglu satisfaire wu. mais ñi fa toogoon jàkkaarloo moom comme que tàccu nañ ko rek d' na ni deux troisième mandat mënta ne moom jàkkaarloo nañu wax ko ko te loolu nag li ko yóbbee man pour man mu ñu jël kàddu di ko di naan ko lu baax lañ xam xamal nangam nangam ba mu xaw a tàbbi sa ndëgg sërëx bi ko opposition bi dalam bu mu xool lu luñ bëgg waaw ndëgg sërëx ndëgg sërëx lañ ko doon jéem naan waaw Amadou Ba ku baax la dëggu la Amadou xam ci moom li ñu xam ci moom koy parce que mine yow maag yow ak diw ak diw ak diw waaw caatum di def campagne di wax ni suñu waa yi benn billet ko fi dese ñu mm. jox leen ko sansam mm. ñu dem abale waaw loolu lépp xeet laal la ko ndëgg sërëx la waru leen woon a li mu waroon def ñëw taxaw ne troisième mandat président Macky Sall si wax te lu si wax ànd li mu fi indi troisième mandat daal di wax ay waxam li mu programmé teg mais nekk fa di jéem a lewetal a gis président Macky Sall. waaw gars yi ñu ngi la yow Assane na wax baat bi nëpp pas daal la xaaroo ci moom dara ay da yebeen ñi nga xam ne jàppoon nañu ay noonu lañ dem gis nañ ñoo doon tàccu ministre bi dem bu mu ñoom baat ñu nekk reetaan yi bari na. Hmm. kon defe naa am na ak coppeeku ci la nga waxoon démb. waaw wax dëgg fa yàlla euh, bi ma ko dégloo. Hmm. Euh, am na loo xam ne man xaaru moon dara. Hmm. waaye wax ji moom am na loo xam ne euh, bett na ma. Hmm. ci bi ma ko déggee mu wax. waaw loolu nag dafa am tamit aussi lu muy waral lu tax mbir mi demee noonu. muy lan man jàpp naa ni Amadou Ba démb wane na ni. ñuy ah, dissoudre parce que bu demee ba mm-hmm. wax na wax joo xamante ni ñu bari tey ci APR boo leen tànn loon ñemewul ñu prononcé ti ñooñu nag. Mm-hmm. seen carrière dañ koo tënk ci Macky maanaam moom carrière am jéggi na Macky Sall maanaam gis-gisam man li ma gis gis naa ni jéggi na Macky Sall jàpp na ni hmm. après Macky Sall war na mën a doon kuy samp ndëndëm peut ngir laaj réew mi wa ilaa koo xam ni mën nañ ko jox lenn ëllëg ngir mu jiite ko te nag dafa am benn comportement boo war a amee dafa am noo xam ne boo ko defee mën nga yàqaale sa bopp ñu bari seen carrière après Macky Sall pare nañ ci dañuy pare ci politique parce que hmm. dootuñu lu bari ci réew mi moom nag calculé waale na loolu sóoraale na loolu ci wax ji léegi nag leneen li mu waxaat noonu ginnaaw bi opposition bi tàccoo eh, il faut que mu am lu mu leer tamit ay partisan mooy yeneen façon wax yi mu doon waxaat ak ni ko doon waxee da ngeen ragal mbër mi waaw ndax bu ngeen kiiwee yooyu waa parti bee ko moom hmm. waaye li ko yitteel mooy li mu wax ci constitution bi loolu mooy li nga ne bii moom mooy lii mu gëm te loolu mooy li nga xamante ni mm-hmm. te loolu rek doy na opposition bi mm-hmm. démb wax jooju rek doy na leen waaw doy na leen boo gisee tey nga gis journal yi of loolu te loolu moo gënoon a nekk man pour man loolu moo gënoon nekk xibaar mm-hmm. bi gën a wér mais boo seetee tiitre ko ci kii ñoom li nga tiitre wuñu loolu du loolu moo waroon a fes comprendre parce que démb yaakaar naa ne président Macky Sall bu seetaanee Amadou Ba mu wax baat bi ne nii ne peut faire de deux mandats kii ne loolu mi ngi ci constitution bi démb du am lu ko neex te loolu moo nekkoon xibaar bi léegi rek journaliste yi nag ñun dañ leen di xaar eh, li ñaan train bi arrivé à l'heure ne nous intéresse pas eh, léegi ñoom train yooyu leen intéressé maanaam bi ñëw ci waxtoo moo leen ñor parce que leneen li mu doon wax mooy train bi ñëw ci waxtu yi li ñëwut ci wax li nga xamante bi ñëwul train bi ñëwut ci waxtoo mooy leemu wax moom la kenn seentu wutoon ni Amadou Ba dina ko wax man mi bokk naa ci ñi nga xam ne seen tuumoo ne Amadou Ba dina ñemee wax loolu te tey ba mu demee wax na loolu te opposition ba ko tàccu noonu préparé wu ñu woon pour tàccu ko donc ba mu leen ba mu waxee loolu da gis ni yëg nañ ni a ah, lii moom discours la bu loolu dafa mel ni euh, assemblée démb xam-xam juddu na fa maanaam maire yi daan ruube démb la fa amoon daw ay rege jook maa ngi def nii yooyu moom gis ñu fa démb ah non démb allah. ensemble bu bu bari xam-xam la. ensemble euh, ñuy wax ngëm hmm. noonu assemblée boobu sax duñ ko génn comme rafetlu nga li nga xam ne mooy Amadou Ba li mu wax. Assane Mestre dikk na ci léegi Assane lan moo tax nga yaakaar ni moom la waa Yewwi lu leen naqari bañ bëgg a jébbal ab kayit président assemblée nationale pour daaneel gouvernement bu Amadou Ba parce que lii moom démb ñun ñëpp ko déglu ba tàcc ko. Hmm. kon war nañoo nangu nañ xam xam di dégg naa mimi ko. ku hmm. am xam-xam nga. Hmm. intellectuel nga. léegi loo jàpp ni moo tax waa yi nag na ñoom itam nekk ci ay daaneel ay gouvernement. waaw xanaa dimbali Amadou Ba rek. si amee waaw après ñu bàyyi waa saway muy teñax teñax rek comme waaw. Euh, mu loolu bu jàllee hmm. premier ministre wala mu tegaat keneen premier ministre a ñëw ci ñoom liggéey. muy teñax nga waaw. bëgg daane noonu waaye loolu moom fekkoon ne xam nga tey jii xam nga loolu moom pour man. c'est pour Amadou Ba day baax. Hmm. waaw bu fekkoon def nañ ko dina baax si Amadou Ba. waaw ndax Amadou Ba fi toll nii mi ngi xalaat ndax man danañ ma jiital ak bu ma jiitalee est-ce que dinaa am ndam. ndax ñu ngi gis affaire ah, ah? war na am ndam. bu ko jiitalee foog mu ñu am ndam ndax après daa man gis naa ni kenn lañ mën a jiital am ndam muy seen mbër. muy kan Macky muy président Macky li mu si mën a am ko su waa ko su néew fii ko si ñi nga xam ne ñoo ko topp. naa dégg ko kon. dégg nañ ko kon kii laa bëgg mu jiite leen ñu ne ko duñ ko jiite. non waxul kenn laa bëgg. non dama ne bu boobaa yow li nga wax da nga ni moom lañ gëm moom lañ bëgg. ñan président Macky Sall affaire moom Macky Sall ñoom wax nañ ko barki dem Farba nee ñun ñun benn mbër lañ am muy président Macky Sall amuñu beneen. Ah, ok sax xeeb nañ sax xeeb kii lijjanti wuñ ko sax doo dégg ñu wax mu tudd ko waa affaire. amul waaw. ok amul waa opposition bi lépp sax ñu waxtaanal. Ah. Mhm. révélation la. Hmm. ay as. laaj yaa ko dëgg. déedéet dëgg lu mu war a. waaw kon baax na. alaaj nee na xamu ci dara dina leen xam alaaj nee na xamu ci dara sampai ci xamul alatnya nak kamu révélation la kon ni sama xel dem sama doom Bay boo pap job, Diop ni kii ñu ñi ñu leen ku leen seetaan ñu daaneel réew mi mbaa loolu la ñuy dëggal waa man su ma doon ah parce que pour man boo gisuma loo xamante ni moom lay apporter hmm. euh, tey damaa cee gis leneen lu garaaw muy lan loo xam ni boo jàpp naa ni peut-être ko def ay borom xel lañ xalaat nañ hmm. ba wax ni bon nañ def lii hmm. euh, ñoo la gën a xam sax politique ñoo la gën a xam kii waaye nag pare saa yi tamit mën ngaa gis sew sew te dañuy faral di wax ne xalaat bi bon mooy bi nga waxut dëgg tey jii président Macky Sall démb nee naa la kontaanu ci Amadou Ba. waaw li ma gisee Amadou Ba wax. si mais bu ko président Macky Sall wàccee. Hmm. Eh, du loolu. duñ ko ko do yaa ngi léegi nag bu ñu dugalee lii. presidente profito. bu fekkente ne dañ cee profito président Macky Sall mën na ci profito. daal di koy wàcce fekk sax mu nekk wàcce boo xam ne dëgg la ci moom. mais mën na nekk wàcce boo xamante ni tamit mën na doon ngaañ ëllëg ci opposition bi. parce que Amadou Ba ñëpp gis nañ publiquement mu yaakaaroon askan wi. xamante ni bii tey dañ naan ah, de dëkkoom moo hmm. moo tax président Macky Sall wàcce ko bi mu waxee lii. Hmm. yaa ngi dégg ci président Macky day doon que dañ

ñëpp xam nañ ni leneen li mu doon wax c'est pour leer ko gars yi rek mais li mu gëm euh, te wax ko mooy lii. yaa mm-hmm. comprendre ba opposition bi tàcc ko ñu ne pourtant opposition bi ko doon tàccu de. ñoom ñoo mujj dugal lii pour ñu daaneel ko. Mm-hmm. d'accord yaa ngi dégg donc man jàpp naa ni daal. Mm-hmm. Euh, opposition bi soxlawut loolu quoi. d'accord fi toll nii. waaw. jaajëf xam naa ki may seen ci commentaire nag nuróo na ma ak mbokk mi ñëwoon fii démb doon seet si waale muy Assane Fall nee na sowaay bu sama sëriñ xam naa xaw na ko nuru nag ñu ngi koy siyaare baax a baax am na ku may euh, sonet Ouguiya Diallo nee na ma Assane Mesere war nañ ko woon ndax xam na ci dossier bi dara yow da nga xam ci dossier bi dara <laughs> dañu ko am dara ñu ngi lay woo mu war naa dem ndax xam na ci dara wax kon mu leer ci wax ko jàkkaarloo sa caméra wax ko waaw non Assane dossier bi maîtriser ko. mais am na ay références yooyu. yooyu ci bëggoon a def. ah xaw ma ci dara. amoo ay références. amoo ay références. bureau ba dafa xewoon kër xamoo ca dara. ah bureau ba Assane bureau ba am na loo wax. bureau ba xamoo ca dara. mu nekk nga ñu fii. lu bees. keroog ban waxtu lañ julli. SMS yi ak julli ku waroon a jiite. kan ma waroon a jiite. maa <laughs> ngi révélation war naa am. Ah. kon nag yaa mi na xamu ci dara ko Assane nee na xamu ci dara ci biir assemblée nationale ñaari député yi nga xam ne jàpp nañu ñoo wulli woon ndaw sa Ndiaye ba ñu seen bopp lañ ko a tuddee. dem yaa ngi ne film ña nga nekk topp nañ léegi nangam sànq ndax jàppoon ngay lii lépp jaaroon na li ma waxoon rek yaakaar naa ni bañ ne daaw nañoo yaakaar naa bu fekkoon ni yóbbu nañu seen kër. Hmm. yàgg yàgg nañ ñëw te buñ ñëwee fekkoon dañoo daal sax hmm. ñoom gis nañu toog ñu ne boobu ba léegi ñoom jotuñu plainte. Hmm. ñi dañoo daw jeeg dañoo daw kii yëpp ñoom si rajo yi lañ koy déggee léeg ah. mais kenn jot si plainte ñu la xew waxuñu leen daal démb yi bu ñu ñëwee sa ensemble ba ñu leen di yër ba génnee au lieu que ñu jàpp leen mais dañ leen a bàyyi bañ dugg seen oto ñu topp taal ay 4 leen mel na ñu rey nit. Hmm. wër ba ci foo man yaakaar naa ne joxoon ko benn waaye mosal jiinam ci seet dem jox leen plainte ngeen suba wuy si leen moom seet moo a rafet ñu yàq sunu gaz waaw daal laa ko demee. d'accord ñoom dañu leen a fi ñu dëkk. da koo jàpp nit ku dem ba ma bu Sénégal ñun ñëpp la ñu xam fu ñu dëkk waaw képp koo xamante ni yaa ngi doon nga député ñoom ñoo la jox sa salaire jox la sa salaire yëpp ñoom dañ laa joxul salaire mais bu la doon jox sa salaire sa bulletin de salaire ñoom ñu yor ko sa bulletin de salaire du am sa dara dara sa benn benn faay bu ko am ñoom fu ne tey bu leen neexoon wala téléphone léegi waaw carte d'identité yi sa téléphone a ngi si carte d'identité yi hmm. sa téléphone mi ngi si sa numéro téléphone te ñun ñëpp am nañ sa carte d'identité fi nekk nii fi nga toog nii ñu ngi lay gis. ñu ngi lay gis waaw. loolu yëpp daa sotti. bu wér. kooku nag bu tey bu nee ñaar dañuy dañoo réer rek diw daa def nii diw daa nii te fi mu xam ensemble nañ dem jox ko présenté bu ñu laaj ko lii lu ko waral ñu waxtaan. ndeysaan donte ensemble boo demee euh, si bitim réew. ensemble yi si bëri day am xeex day am xuloo day am mantante gàjjante ensemble yu bëri ah dañuy dem sax ba éliminer kii bi dem dàqaat yooyu yëpp day am si ensemble yi kon lii am sunu ensemble yi sax du ay rëmbooj fii bi kii naan ay rëmbooj sax grand mag Gaston Mbengue bi nga fi dafa toogoon. kan Aminata Mbengue Ndiaye. koo gaa eh, nga ko wax. ma ko. nee naa ah, xam nga de. ah alaaj nga yiñ na li ma koy wax sax naa damay tooññee. xaw ma ko boo ko leeral. Ah, nee na xam ko. rek defal noonu. Euh, Assane mi ma doon wax nee na bokk la ki ñëwoon fii kon ak comme ci mën a doon daal Assane ñu lay ziara bu baax a baax a baax alaaji ñaari député yi ñëwoon réer nañ daw nañ ay la yooyu ndekkee ñu ngi fi démb ñëw nañ gannaaw ba nag tey ji lañ war a wuy ji waaw xam nga sooy sooy nag aay na quoi hmm. sooy bu aay hmm. Assane dafa xam ne bii hmm. durul xam-xam sooy te du xam-xam sooy mel ni ku yéem <laughs> gis naa ko ni muy gis mun ko waaw mun na ko ah loolu révélation la yow sooy nga taal say caméra. waaye bi laaj xanaa yéen bi la andi ko traqué li ñu ko xanaa fii nekk internet Sénégal gi àddina bi yëpp di la seetaan. yaa ngi lay daal dañu lay gis mel ni loolu xam la gën a. waaw dañuy xanaa dañuy dégg nga loolu moom waaw damaa dégg nga euh, waaw yii ñu ngi gis ah fi toll nii <laughs> koy gis mais li am li am solo say sooy bu. alaaji waaw. Eh, xam nga. pare il faut que ñu poser ay questions ci lu waral lii am am parce que avant député yi di génn di ñibbi def nañ vidéo leeral ne mosu ñoo jot benn convocation. Mm-hmm. te convocation yi ñuy dégg yëpp. waaw ci mbedd mi koy dégg. Mm-hmm. waaye ñoom jotuñu convocation tey daw. Mm-hmm. ku ne ne ngi woon këram. Mm-hmm. te gisuñu seen kër ku leen fa indil. benn convocation. daal ne ñoom pare nañ saa yu saa yu leen convoqué. ñu dem wuyu ji. tranquillement comme ni ñu ñëwee ci assemblée. nekkuñu fi di daw ak wut fu ñuy lool. loolu di benn. te loolu ñeneen doon jëli jàpp naa ni yëg nañ lool wala déedéet léegi député nekk ci assemblée génn ba dugg ci seen oto ñu topp leen waaw te biñ leen di topp leer na leen ni ñu leen di filmé léegi luñ jublu ci loolu filmé ak topp bi journaliste yi lan lañ ci jublu mbaa ndax dañuy wane ni dafa am ku ñu soxla wan ko ne ko ñu ngi liggéey gis nga ni ñuy def. waaw gis nga ni ah. lii parce que lu warta am quoi. yaa ngi dégg. mel ni ku nekk ci film. waaw mel ni ku nekk ci film mel ni dàqine mu daal di tew kërëb kërëb nekk ci otoom ngeen koy topp di jéem a kii ak tamit xam nga nañ ko interpréter nu ngi gis nga leen ñu ngi doon dugg ci oto yi di mm-hmm. tey jii la wanoon kii yi rek am na nu ñuy interpréter vidéo bi mu nekk mën na nekk leneen. parce que partie yi nga xam ne moom la taxaw sax mën nañu ko dindi jël yeneen parti yoo xam ne daw lay nekk kii di daw di xam naa lu ñu naan mel ni dañoo daw comprendre nga loolu nag ndax peuple Sénégal bi lañ ci jublu wala ñeneen lañ ko jubloo wan xel ngeen député député Kaval yaa ngi nii parce que bul fàttee nag affaire bi nag lu international la uh-huh. loo xamante ni bii nekkul ci réew mi rek mais mën na wér àdduna tey jii mën na am ñeneen ñu traité neneen information bi jël même vidéo yi daan ne gis nga gis nga ni ko beneen film bu gën a leer. boo xam ne mi ngi leen topp ñu dagg parti yi ñuy taxaw yëpp ñokkal yi ñu koy jël. dëpp ñu koy noonu gis nga dañuy daw kii fii dañu réeree. loolu yëpp mën na <laughs> am solo démb li ñu fa gis mm-hmm. parce que ñoo xam ne bii nee nañ fang. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi lu ci jar yenn yi. man gisuma ko ci jar quoi. Dobra jar Dakar ak yooyu yëpp jaru ko. wax dëgg fa yàlla li ma gis démb moom euh, loolu jaaxle. jaaxle nañu kon moom après dama la mais lii pour lii pour lan. ñu xamaa ñoom jotuñu vidéo yi xamaa dégguñu mbir. te loolu war nañ koo yëg nag. macha allah waaw. ayca jaajëf alaaji ci euh, jàngat bu am solo boobu Assane ARMP dafa euh, def benn audit boo xam ne daal jàpp na ni ci wàllu corona bi dafa bari ñu ci enrichir maanaam ñoo xam daal dañ cee bopp ba guuñal seen i poos am na nag ñu ngi ci tudd ku ci mel ni euh, gorob njiitu réew mi tudd nañ ko ci ak ki nga xam ne itamit euh, moom mooy euh, Abdoulaye Diouf Sarr ñu jàpp ne daal dafa am surfacturation bu am exemple micro bi saa njoogu jëndee naa ko dix mille fekk micro bi sept mille laa ko jëndee wala jëndee naa portable bi ñaar fukki junni fekk quarante mille la ko jëndee mu mel daal ARMP moom def na liggéey bu am solo boo xam daal épingle na ay kilifa ni ci lañu guujalee ba seeni poste guuj ci wàllu ubbeetul kenn hmm. tayit eh, ku demee ni Abdoulaye Diouf Sarr man damaa xaar yeneen épingle si moom si jëm si wàllum leeral lan mooy corona ah, parce que nee nga woon xaar ci moom Faye Waly Seck. déet loolu jàlloon na <laughs> ah, loolu jàlloon na. ma ne ko waaye bii gëmu leen ko bu ngeen bàyyi ba tey. Ah, gaa def non non gëmu leen ko woon. ma may wax ni dafa xaalis bi génn na waaye nangam. di def révélation gëmu leen ma woon. mais nag ginnaaw am na keneen ku. ñëw ñoom wax nañ nee nañ xaalis génn ba kii na ko na dem penante ci ñooña. ma gisoon ñooñu gis. ah gis naa gis ah? ak njort bokkul parce bu fekkee da ngaa gis. Hmm. Euh, doo reculer quoi mais da ngaa njort. non damaa taayee nekk fii seetoo woon bay gis dañoo gëstu teg seeni kii ba gis. voilà léegi nga ñi si yoon léegi benn. Ah. benn bi nañu leeral il faut que woo ko mu leeral ñu. kan moom Diouf Sarr dem si plateau télé yi. moom kese de ak kii. Euh, moom mu leeral ñu lan mooy corona. yéen hmm? eh, Assane corona feebar la nekk. waaw yow nañu leeral lan mooy corona sooy. corona ñii liñ lekk si ñun sax ñun liñ yàqule moo ko ëpp. muy lan. Hmm? ñiñ sàcc seen jur si couvre-feu bi. loolu mënuñu koo baal. ok couvre bi mais sama mbokk yu bëri seen jur gi. couvre-feu ci dàq ci wàllu liggéey moom lañ sàcc si kii bi ñi si dàq si wàllu liggéey yow am na si mbokk moo xam ne mënu woon a ñàkk fekk ci rob ba léegi di moom si bopp yi ñu tëj leen si kaso bi mhm. nii ndax ab feebar buy wàllaatee te feebar bi guddi lay wàllaatee bëccëg gi mën ngaa dox ay soxla lay guddi mhm. ko des suñu bopp bi kon nañu Diop Sarr ñu leeral nañu lan mooy corona ba pare d'accord waaw yow moom daa mel loolu mënoo ko. man loolu mënuma ko baal il faut que mu toog dem si débat yi werante leeral lan mooy corona. d'accord corona moom il faut ma xam. ok alaaji ginnaaw ba Assane laajee question yooyu moom yow noo gisee ARMP liggéey bu am solo bi nga xam ne jàpp nañu ni def na ko waaye est-ce que li ngay faral di wax dina am suivi. waaw xam nga man du moo tax ma lay wax ne la. Hmm. par yenn saa yi xam nga depuis kii xam nga wax nañ. Diouf Sarr chaque jour nag man damay gisaat encore am keneen koo xam ni dañ ko ciy lang day day nekk à côté. muy kan. xam nga wax nañ corona wax nañ tamit ministère Mansour Faye. waaw xam ah, waxoon naa la fi keroog bi ñu fi waxee xaw ma kan ak naa la est tamit par ay dossiers yooyu kii pour téye ay militants parce que Diouf Sarr. Mm-hmm. temps yi dafa mel ni. xaw na ki ay kii activité politique am na yeneen kii yooyu mm-hmm. léegi nag bu fekkente ni dossier yu mel nii ñëw na

maanaam ku ci nekk daal dañ lay fàttali. waaw mm, léegi nag. yaay xool si troisième mandat bi noo ko gisee. <laughs> xam naa ñu ñu ñu tànn ko tànnaale kenn ku jigéen ñi réew. ah ok. Mm, moom xam nga moom moom daraan gongo troisième. waaye ah, nag ñu laaxaale ko. bu doole dañ ma cee seppi. Mm. parce que bu doole dañ ma cee seppi. Ah. ndax bu ñu nee singiri la ñu noo ko singiri. waaw ah, gorom gorom du ci gorom du ci. parce que Diouf depuis bañ ko wàccee ba léegi daa mel ni jéemoon na fee baj baj sax. waaw baj baj googu nag dina xoolaat taxawaayam naa ne fan yii moom Diouf Sarr léegi nga dégg ko mu commencé defar ay kii ne président du moromu gars yi. ah oui. waaw. moo gën de. Oh. waaw dossier bi loolu la. Diouf nuru na mu comme ay principe de. Hmm, principe Abdoulaye Diouf Sarr. dañoo tegul ko idée rek. ah ma am preuve. ah ma yaa ngi <laughs> si preuve rek dañoo tegul ko idée rek ñii ñii dañoo preuve. Hmm. ak principe. liggéey liggéey yi. na parce que loolu nag mooy tere xam nga beneen hmm. euh, nga gis parti bi di dox normal yëf di lool def ndànk nit ñi kii ak yooyu yëf di dox ah, boo def ndànk réew ma dox parce que yi dañoo dënk quoi. d' accord comprendre bu fekkee pare saa yi nag booy dégg ñaan parti ba tëj nañ jiw tëj nañ jiw jàpp nañ jiw. Mm-hmm. li nga dégg gars yi commencé bi fekk ci biir parti ba. Mm-hmm. parti ba dootu doxati ni mu war a doxee réew ma dina dox. Mm-hmm. donc il faut que nit ñi nag gën a servir réew yi te parti yi macha jaajëf euh, soxna si di laaj ci commentaire yi nee na képp ku ëmb wala kuy nàmpal est ce que mën na jël médicament yu hémorroïde bi waa lu mu ci doon rek euh, su dee da jënd ci boutique bi. na woote waat fii boo ko demandé Aïcha dina la dina ko euh, euh, wax saa Ndiogou ñu wax la waaye yow mi wax loolu daal wala saa mën koo wax directement. non mu woote. mu woote waaw léegi soxna su fekkee da woote waat solution incha allah fii ba 16h30 di si mu jox la alaaji bu dee keneen la nag ku mu doon rek ku jënd émoride muy jéegu jigéenu wéeru wala kuy nàmpal rek la nga laaj alaaji est-ce que kuy nàmpal wala ku ëmb mën na jël incha allah jërëjëf soxna si ci euh, laaj boobu de ndax dana fi faral di am. tey la Baye Mbaye MC fas yéene maanaam gagargagare dossier yi mu yor audio yi ak li nga xam ne nee na woon nañ ma woo plainte ma wala moo xam convocation la ma ñëw jox juge bi dossier yi ma yor pour dossier pour pour jàmm am avant loolu ñu fàttali ni Baye Mbaye MC naa wax ni bëgg na kilifa diine yi toog ñu waxtaan. ñu waxtaanee mbir yi mu wax leen li ci nekk ñu waxtaanee ko jàmm am ci réew mi Adji Sarr dellu ci ay mbokkam bu ñu fàttee itamit Baye Mbaye jiitaloon na loolu tey jii nag woo nañ waaye balaa loolu ñu ñëw ci loolu euh, démb capitaine Touré wuy jëna waaye yow mii def naa ma yow ceeb ba léegi xamu ko dara la xew ci mbir yi te avant loola daa nga yëg audition yi fi daan jaar la daan xew lépp daa nga ko yëg ndax da nga ñëw ñëwal ci ab révélation wax ñu ndax xew ci juge nga am ay yoo xam ne des fois man choix waaw jërëjëf sooy bu xanaa nga may ma des leeral tuuti rek. ci lan. ci mbir mi xew si foofu noonu. li xew démb. waaw kon gars yi partagé leen laay bi Assane war wax la xewoon la non ñëwal ñëwal ñëwal ca la xewoon démb. non damaa damaa bëgg. waaw. Sénégal yi déglu mu baax te li ma wax bàyyi si xel. waaw ca la fa xewoon waaw waaw. li mën a seetal Ousmane Sonko. Hmm. si xibaar seen. li mën a seetal Ndeye Ndiaye si xibaar yi seen mooy dossier capitaine Touré bi ak dossier Baye Mbaye MC bii incha li leen mën sétal ñaar ñee moy ñaar ñi bañ démé New York capitaine bi lañ sol fañ tok ba japp jàpp julli lañ fa waxante lepp alxames bu ko Cheikh Bara leen bu ko Cheikh Bara leen ak Ndeye Khady mënu ñoo seet. non non dama ni Ousmane Sonko saa bu demee waaw bu ñaandoo càmmooñ ñu xam ko bu jàppee ñu xam ko jullee ñu xam ko lépp lu mu fa def Cheikh Bara dañ koy leeralal ba mu leer nañ. waaw Ndeye Khady Ndiaye saa bu demee. lépp lu fa am Cheikh Bara dañ koy leeral ba mu. mais du moom kese. léegi waaw moom laa wax. moom li mu. mais yow moom ni koy la mu dégg si moom lañ koy dégg. waaw d' accord léegi nag waa GMC. yow dafa amul xibaar yow li xewoon dem amoo ci xibaar. ma ne amoo ci xibaar. capitaine Touré. nam nuyoo nam toog lañ ko laaj. waxuma loolu dama ndax yow am nga xabaar ani am nga amoo ci xabaar démb. loolu laa posé débat bi dañu ne. léegi lu tax yeeraan seen. waaw yeeraan seen. xaaral xaaral la ko daan seen avant Cheikh Bara non avant Cheikh daa nga dégg ci presse bi. ngay dégg may dégg. ñuy wax ni lii xewoon na. balaa Cheikh Bara ñëw ma léegi lu tax. yëpp ignoré ba sama maam ma nekk ci dëkk ba amul whatsapp amul facebook. xamul dara li xew démb ca bureau doyen des juges ci rajo rajo yi ñoo ko xañ. ak tere yi. loolu laa lay wax tax ma ni la ah. léegi tey jii pour seetaan ñooñu. pour seetaan day xale ak Ousmane Sonko. mooy yii am si ñaari dossier yii ñu leeral ko ñoom Cheikh Bara def nañ daan def si dossier yëpp daan am kon léegi léegi bàyyil foofu léegi ñu ko defut waaye léegi ñëwal ci ñi bàyyi loolu kon léegi léegi ñëwal ci lan moo tax nga jàpp ni moo tax rajo yi ak télé yi ignoré la fa xew démb waxuñu ci mel hmm. ni du ala une la fa xew démb mooy maam matir doon kilifa matir mooy lan maam doon kilifa àndoog ay nit ñu bari capitaine Touré dañ koo woo mu waaxu dem jàkkaaroog siis bi mu ne ko wow na mu ne ko koŋ. mu ne ko wow na mu ne ko xib. non si si dossier bi daaw. maam liñ ko lim li mu waxoon moom. dafa dèjà dellu. dafa ñëw dëggal li mu waxoon. waaw nan ko waxee woon noonu la ko waxee. am na lu ma la si yónnee. déet la nga yónnee bindu WhatsApp la. nga bindu si si bindu. bindu WhatsApp la mais capitaine Touré la mu waxoon la wax. non loolu ab WhatsApp la. ba xam naa may nan waxoon la wax. yow ku la yónnee ah, ah, loolu ah, xam ki ma ko yónnee. kan la.

jërëjëf jàmbaar <laughs> loolu bu doon après <laughs> gërëm ah? la ko yónnee moom bu utilisé bi jàmbaar ji ay ca alaaji eh, voilà baal ma mais ñëwoo ci Baye Mbaye MC de tey voilà. Baye Mbaye MC na dem Baye Mbaye MC moom bosamtu bokk ak bu capitaine Touré. bokk incha allah si kanam dinañ xam ci kanam tuuti su génnee euh, suba incha allah madame war na wuy moom mooy faa yi liggéeyee hmm. di dem ci sud bëte mu naan ko Macky Sall moo mën a sabar jàpp leen am naa tey client boo xam su ma leen ko waxee dinañ ko gëm Ousmane ba euh, ñëpp ñu ñu bari tey nga naan lu xew ma naan lu xew hmm. incha allah ñu ñëw ci bàmmeel yi di leeral sànq ci fi nga doon wax ci émoride bi waaw la plupart nag ñi nga xam ne ñu ngi ñëw euh, ñu ne dañoo wan lor wala wala ñu laajte parce que wan lor dafa bëri ay mën naa am ay yeneen problème yeneen luñ lay tere yenn kii ak affaire yooyu dañuy wax ne bon boo jëlee grossesse ak yooyu bu ko laal soxla ñu lay jaay. d'accord loolu moom la ñuy wax. comme daal bu ko waaw xam nga kooku muy wax cëri bi daal moom dañuy am ne la moom bu ci dugg bu ko ko jël quoi. d'accord donte nag garab gi nekkul garab bu weex du garab bu kii mais mais nag wax dëgg fa yàlla ëmb. mën nga ëmb ñu ne dafa allergie yi dafa bañ lii lii waru ko naan lii waru ko lii waru ko donc moo tax dañ lay am ne la loolu moom waaw na na na respecté yàlla na suñu borom mbay ba mu jël jàpp. incha allah ci kàttan borom. d'accord voilà léegi nag démb la xewoon lu tax ñu ëmb rek. waa li tax ñu umpale ko bon Assane tontu na ci ci benn côté ci que ni la plupart bon ñi daan dem bokkut ak ki dem capitaine Touré moom donc dem na. Mm-hmm. te ba mu demee tamit li génne nii mu génnee nga gis ni bon kenn waxu ci mooy xam naa ni gars yi xaaruñu leneen lu waroon li capitaine Touré di wax. Mm-hmm. Euh, xam naa ne bi ñu kii gisee gars yi dañaan bi arrivé à l'heure intéresse pas. loolu moom la kii euh, daa dee nasaxale maasaare ko. Mm-hmm. waaw xam naa ni tamit le capitaine Touré wax daal bu waxoon safaan moom boo xëyee moom la ñëpp di bind. Mm-hmm. waaye ginnaaw dafa dëggal boppam. Mm-hmm. wax la nga xamante ni moom la daan wax. waaye lam daan wax rek la waxaat donc jar rëyal. waaw mais nag waroon nañ koo mën a rëyal. parce que am na presse boo xamante ni moom. ñoom ñu ngi ne lenn loo xam ne wax na ko lu safaan rek loolu la xëy. fesal di wane ni nii ak laa loolu day wane rek ni gars yi divisé wu nga xam ne que daf cee am ak yooyu mais ginnaaw dem na daal dëggal boppam wax la nga xam ne moom la doon wax donc loolu c'est bien te moo di nit ñi séntu wuñu woon leneen am mu wax leneen lu mu wax nit ñi loolu não séntu não moo tax it ñu ko não tamit bon mu não na mu demee não rek parce que não na li mu não wax. não accord não nag MC tey la war MC. keroog Assane wax na fi benn wax. waaw mooy. muy ci audio bi. waaw moom weddi na <laughs> ba jox ko mu dégg. waaw waaye xam nga xam nga xam ko. waaw. <laughs> xam nga man su doon bàyyi mbay yem euh, noonu laay doxalee. man ni may doxalee. c'est que waaw rek rek. dama ne man bu doon bàyyi mbay yem te jàpp naa ne noonu la doxalee. xam nga tey boo nee yor naa lu leer nañ mu leer nañ nga dégtal ñëpp lu leer nañ bu gaa yi bëggee lëndëm duñ la woo léegi nag ci biir nit ñi am na ñoo xam ne mën ngaa créewaat beneen unité boo xamante ni da wax loo même wax yi ñu nga wax loo ko keneen koo xamante ni kii ku ko dégg gis ne du baat bi ñooñu ñooy génnaat ne li mu yor baaxul. woo leen ko. woo leen ko. li mu yor du dara boo waxee lu amul ñu téye ko. waaw li mu yor du dara. léegi nag bu ko defee ñu woo ko fekk ña nga xamante ni bii <laughs> ñooñu nag man jàpp naa ne Assane ci ñooñu la ko. maanaam ñi nga xam ne waaw jàpp naa parce que bàyyi bi mu wootee daal de. kay man naa la ko dégluloo. waaw ah. am ñu bàyyi foo audio la leen dégluloo. Ah, garde ma parce que nee na bàyyi bay toog taal kii boo ñëwee ba tëj bi taal kii di wàññi rajo bi jox la ni la ah, xam na ne waa ji ku dañ kumpa la. yaa ngi dégg ñu ñu ko a tax procureur xam même nit ñi nga xamante ne oh, a dara waxoo leen woo nañ ko woo. nañ ko woo bu ko defee sax mbir yi jeex léegi nañ ko woo nañ ko woo léegi bàyyi bu ñëwee bombam nag. ñooñu di lay daal ah bon ndekete. <laughs> waaw <laughs> waaw waaw man de jublu ma woon boobu. waaw parce que yow bu ñu nee yow kaay mën na yónnee yow kaay ban nga di ko. man léegi ma di di ma nekk sax. koy koy jàmmanteeg. jàmmanteeg koy siyaare ak naan sëñ bi nomm naa la ñaanal ma. yow loolu nga yëg. waaw. ay affaire kon faa yore rek. dañ koo sara. dañ koo sara rek. dañ koo sara rek. sëñ bi damaa sara rek. sëñ bi ma ngay sara. ma baal. affaire bi jàmm sant sëñ maa ngi siyaar. sëñ bi yow sama sëriñ nga. yow moom waxul dara ci diggante Ousmane Sonko ah dégg moom <laughs> dégg moom benn yoon mu tuddee Ousmane Sonko sëñ bi damaa sara ah, ñu am tamit sooy ci mais Baye eh, ah. bu nappee eh, yow képp li asaawa am na euh, ci personne yoo xam ne. faaw Baye ñëw jox leen foo bi. ñooñu wër naan yoru dara. waaw nekk li nga xam ne ñooñu ñooñu ñooy tax ñu woo la quoi. parce que du leer tàñ. ah dem kuy tey ren kooku moom jarta woo leen ba dem. xam nga leen ba bu mu dem. waaw <laughs> <laughs> ah. leen mu dem. xam ah. nga. Ah, <laughs> ma taw ma ma yii la ma déggee bu ñu ko tegee carte gi la mu wax. kon waa ma ne dégg moom wax dëgg yàlla. Adji Sarr moom moo nekk si li li mu loolu noonu kenn si am problème ndax jàmmanteeg nuyoo sama sëriñ en tant que taalibe beeg yooyu noonu laa ko dégg. loolu nga dégg waaw dégg moom. benn mu nekk alaaji ñaar rek ba ñëw ñu tegal leen jàmm sax de. waaw man naam jàmm ñaar yi kon dañoo tegal benn bi yemamaay rek dañoo tegal kii nëb bu garaaw. waaw ah, ndax garaaw moom procréé doom moo koy am. parce que boo defee déplacement ba ñëw il faut mu tegal la dara. waaw loolu la demoon ah. mais keroog maa ngi koy wax mu ne ma baax na yow moom xanaa da ngay ab sëriñ day jël oto bi kilim ko tent noir relante mu fay ma mooy dawalal boppam hmm. boo ñëwee mu mu wàññi rajo bi xiij jox la casque bi ne la diglu yokk nga naan cëp mu daal nekk si leneen ah coono waaw moom du la jox téléphone téléphone da koy téye boppam ndax day bañ nga gaaw muy day téye boppam téléphone jox la casque yi kese yi hmm. bu ko defee nga naan cëp <laughs> ci mun na xaaral ma avancé tuuti mu ne nag pour avancé taxal foofu mu ne xaaral rek daal di avancé avancé ak yooyu pour yaa yaa ngi jàppale yaakamteeg yooyu. mais envoyé kenn moom. envoyé wu kenn moom li ma yor li ma jox. wax dëgg yàlla moom. ah ay saa yu ñaan affaire yooyu noonu. jërëjëf waaw loolu kon mi ngi noonu euh, yow mi nekk Maroc tey laajte nan ngay def ba mën a liggéey ak ñun jaaral ci même numéro boobu di jaar ci bas écran bi muy 75 400 wala boog 78 426 66 ki ngay jot dina la jox numéro alaaji wala dina fexe ngeen jokkoo incha allah bu ko defee yow ñi bëgg représenté ci dëkk boobu ak foo na mën a nekk rek mën ngaa jokkoo moom jaajëf kon Assane ba suba ak xanaa di sant ñëpp di leen gërëm di siyaare oustaz Omar Sow ak waa Paal gépp ñu ngi leen di ndokkeel. alaaji ba jàmm. incha ci kàttan borom. jaa ngeen jëf mbokk yi kon ba suba jàmm xam naa ci kanam tuuti incha allah ca solution info ak partali ci euh, capitaine Touré mu wuy woon la ca bureau doyen des juges tuuti as lëf ci Ndeye Khady Diallo Ndeye Khady euh, mi itam moo seqoon ak Adji Sarr la waxoon ci biir ni ñu woon euh, démb incha allah ci solution info danañ ci ñëw ci ab jàngat bu ànd ak dogal borom bi